un manque criard Sur le stade départemental à mon tribune ni pelouse en fait c'est un terrain nu mais on ne war nañu reprendre l'éclairage avec de nouveaux projecteurs conséquence si un manque d'intégration à l'élite du football national Nous njëkk a recevoir des joueurs même un peu partout du Sénégal di ñëw di jouer à autre part aussi nous une pépinière aussi bien pour le Casa Sport et d'autres équipes de Dakar aujourd'hui l'équipe est en division régionale mais wax services service départemental du sport dafa dans un état lamentable à Bignona mais wax un plaidoyer pour un terrain multifonctionnel Nous aménager ñu plateau sportif Nous avons des handball basket volé à installation d'une piste d'athlétisme département bi beaucoup na ressources humaines Il y des ay génie ci genre Sadio Mané ma ci ma ci euh, ma ci euh, cité kenn un jeune pensionnaire de Bignona Basket Club qui malgré le terrain bi nga xamé dafa bon mais dem nañu ba boole ko ci NBA Academy donc mu doon lu rëy mais wax ne peut-être que bu ñu fexe woon ba yokk moyen yi mën na am ñu am beaucoup plus de jeunes yoo xamante ne mën nañu mais ils sont dans l'ombre mais wax ne la pratique sportive daf di loo xamante ne lu ancré en Casamance yoo xam nga ci dara d'ailleurs même on a déjà euh, nous euh, mu bëgg wax encore on a déjà un club de randonnée pédestre club bobu yag na am et ce club de randonnée pédestre dañ ko dañ ko def à Bignona pour que les administrateurs que ce soit préfecture à les corps yi nga xamé ñoo fa nekk représentant l'État ak ñi fa nekk ñëpp ñi ci en même temps tous les dimanches ñi def randonnée pédestre donc loolu vraiment lu may rafetlu la parce que fexé na ba loolu tissé na beaucoup de relations aujourd'hui Bignona déjà qu'on a l'UVS on a l'ISEP donc nga xam la population bi dafa yokku ñu vraiment du tagat de yaram nos bëri moo vraiment tey boo ñu jàppale woon ñu nous a suñu infrastructure nous ñu gën koo parce que souvent quand tu vas là-bas tu as un problème parce que tu ngay bëgg le matin dors pas. mais c'est un problème parce que fépp dafa xat doo am fenn le long de la de nu mu la RN6 bi dem à RN4 rek nga mën a doxantu alors que deuk bi yaatu donc amna fenen feneen xamé xamee mën nañ fa teg ay dispositifs yo xamé né à chaque fois bo démé fofu mën nga mën nga tagat sa yaram sans pour autant voilà être vraiment dans des conditions idoines pour mën ko def donc lolu vraiment.

vous avez fait le maximum les jeunes aussi yi nga àndaloon tamit amoon nañu yaakaar comme ñun tam nañu amoon yaakaar ci ñoom ñoom tam bëggoon nañ dem fu sori waaye fii la ko yàlla yemale peut-être la prochaine fois sera la bonne pour tout le monde merci beaucoup monsieur le ministre. je vous remercie.